doon fa nemmeeku si ay liggéey yoo xam ne dañ ko santoon ñenn ci seexi sëriñ Touba yi liggéey yooyu noppi ñu war ko jébbal sëriñ bi bi mu agsee ci 13h bi mu tegalee ay simili rek ci la jubali ci jumaa ji nga xam ne moom lañ dénkoon njabootug sëriñ Aliou Diouf làmbaay gi ñu ko doon yeesal ñu liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib lool te jamono yi ci ginnaaw sax sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadir jotoon na fee ñëw ci turu sëriñ bi nemmeeku liggéey bi ba yëkkati fi woon ay kàddu yu am solo ci teewaayuk njabootuk sëriñ ali Diouf Lambaye yi sëriñ bi nag tey jii ñëwal na boppam ci jumaa ji ànd ak ay kilifa yu takk lool doxal boppam ci tànkam yu tedd yi ñu wan ko jumaa ji ci teewaayuk njabootuk sëriñ ali Diouf làmbaay gi ñu leeral ko liggéey bi nga xam ne moom lañ leen santoon Ceerno Faali Diouf mi ngi xalifa sëriñ daa wax ne ginna ba santee gërëm ñëpp commencé nañ di ñaan nga yàgg te wér nga jiitu woon la naalante motut nga mottali ko ak li nga naal te amee ci ngërëmul sëriñ bi la ca dolli ko nag amiin la ca dolli ko itam wax ji moom nee na du bari ndax sant yàlla rek la ndax sëriñ Tuubaa kum liggéeyloo xam nga ne dina la fay liggéey bi itam sëriñ bee ko liggéeyal boppam dañ ko teg ci loxol sëriñ Thierno Fall yi waaye sëriñ Thierno Fall yi wax na ne sëriñ àll yu dey sëriñ Touba wax Saada tàll ak Demba Baro ak sëñ Mbacke Maane ñoom lañ njëkk a liggéeyloo ay kër ci ñoom ba jógee ca liggéey sëñ Mbacke Maane ba ba sëñ àll yu demee sëriñ Touba da ko àll yu am nga ngërëm lu jafe ngërëmul Mbacke Maane loolee nag mooy dox ba nii ngërëm looy nu di ko sàkku sëriñ bi nee nag nee na mi ngi lay seeral ne mboolem ñi mu bokkal suñu ak ñi mu bokkal Bawal ak ñi di wëlëre sant na ñëpp gërëm na ñëpp ndax danga koo tegal ci loxoom sëñ Abdoulaye mi nga xam ne moom mag ci sët mu mu defaat ko muy jëwriñ mu ànd ko ak sëñ mii di xalifa sëñ Modou ak sëñ daam Diab mii ngi xalifa ko sëñ Basirou ak sëñ ah, Assane Diouf rakkam ak sëñ Alaaji Diouf ak sëñ Aliou Baxdaat ñoo ñi nga xam ne ñooy ñooy kër sëñ Aliou ñoom la àndalan ñu di ay doom ak sët ak taalibe waaye bañ ko tàmbalee ba ni mu àggee saa bu geesoo gis na leen te lépp loo xamante ne bii ak bëgg ma di sa bëggit def nañ ko ci ba mu jeex kon mu ngi lay seetal ne nag gërëm na gërëm na leen gërëm loo xamante ne bii mu ngi la koy seeral nam waxoon keroog rek ñaan njëriñu tey ak ëllëg ak taalibe gu amut ak ak yàqu rek loolu rek loolu kàddu yi noonu la jëf. moom moom moom kon ngërëm loolu mu leen waaw nee na kon moom ngërëm loolu mu leen gërëm. moom moom mu gërëm nañ ko. gërëm nañ ko. te ànd ak moom si ngërëm loolu yi mu leen gërëm. ngërëm loolu mu leen gërëm. jërëjëf jërëjëf nee na jërë ngeen jëf. alhamdulilah nee na xolam sedd na guy. nee na seen xel dal na bu wér. nee na noonu rek la demee nee na fas yéene koo ànd ak yéen rek. alhamdulilah Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. bismillah fii nii ak daara yàlla sali baqa abi bi fiq yàlla yaa man lawal amru yaa